kon itte jooju lañ bëgg a jàngat ñuy wax ne dogale yàlla yi suñu borom dafa am lu muy dogal loo xam ne yoonu doomu aadama nekku ca nit mënu ci dara dafa am dogal yoo xam ne yoonu nit newu ca muy nit ki fa muy juddoo yoonu newu ci daa jekk ji gis bopp ne foofu la bokk rek nit ki fa muy ba mu bokk këriwu ko sosu ko itte mayu ko ko dafa jekk ji gis ci bopp noonu rek gàttaayub nit ki ak guddaayam ab xeesaayam ab ñuulaayam ab rafetaayam ab ñaawaayam loolu yoonu doomu aadama néew ci loolu mooy dogal yi nga xam ne suñu borom daf koy dogal te yoon nit néew ci waaye dafa am yeneen dogal yoo xam ne daf koy teg ci pas-pasu nit ki ak itteem dogal yooyu muy dogal nag te teg ko ci pas-pasu nit ki ak itteem nga xam ne sabab lay am kooku nu nit ki amee itte rek noonu lay amee résultat nu mu ñàkkee itte noonu lay ñàkkee résultat loolu def ma xamee jamono bu ne lu mel ne sàkku xam-xam ak jaamu yàlla gu bari ak wàllu commerce moo xam da ngay bay moo xam da ngay càmm sàmm moo xam loo man di def ci àdduna di ko lijjanti am na ci yoo xamante ne ittey nit ki moo koy jàllale fu mu àgg moo ko fa àggale ak ñàkk ittey nit lu mu ci ñàkk moo ko xaj yooyu dafa mat di xam ne itte nag dafa dikk lu bari ci mbindum Sëriñ Tuubaa mu di ko tudd Isaa day wax day tagg saxaaba yi ak sëriñ su njëkk si ci itte ju kawe di wax ne kullun lahu همة يرقى بها أبدا إلى عزيز معز ذي فتوحات كان ku nekk ñoom day am na itte ju kawe joo xam ne ci lay jaar ci itte jooju pour àgg ci ci ci suñu borom yiisaa sëriñ bi di melal boppam ci ñàkk itte ci ni ko ahlu tasawuf baaxoo defe muy toroxlu seen diggante seen borom di wax ni tanaamu ayni wa qalbi kulla azminatin wa himmati lil maali xayru murkinati sama xol ak samay bët de jamono bu ne day nelaw te samay it mës sa jóg mukk jëm ci sàkku yu kawe mu wax ko ci anamu troxlu sëriñ Mouhamadul Amin Diop Dagana ci Irwaawu Nadim dafa wax dafa wax ne kenn ci kilifa yi sëriñ si ku ma doy moo ma noonu la wax ne sëriñ bee ko ni su eh, yonente bi dama wax dafa waxanteeg moom jahran ne ko rabbi asxaabaka bil himmati sa sa taalibe yi na nga leen yar ci itte wala turabbihim bi darsi kon jàngle xeetu yarin la waaye sëriñ bi dafa jël itte muy xeetu yarin la booy fekk loolu lan mooy itte nag daa mati leer daa war a leer mu mel ni yàlla ci boppam it dafa digal yonente bi ni ko ñi am jom ñi ëpp jom ñu di leen ulul azm yi muy borom itte yu kaw ci yonente yi na nga amee jom nañ amee woon jom fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul borom yu kawe ci yonente yi nañ amee woon jom di muñ na nga amee jom noonu loolu yàlla moo ko digal yonente bi sama yàlla di ŋàññi ñi ñàkk itte di wax ne wala yaatuuna salaata illaa wa hum kusaala saa bu ñëwee di julli si ak taayal la ñuy indaale wala yunfiquuna illaa wa hum kaarihuun bu ñu demee bay financé si alal yi ci ak ñàkk say ba ñu ngi koy def waaye neexu leen kon loolu yi sëriñ bi wax ci ite ak noonu yàlla digale yonente bi mu topp ulul azmi mina rusul ak noonu mu ŋàññee ñi ñàkk itte laaj na kon ñu jàngat lan mooy itte itte mooy lan dëgg dëgg mooy lan bu ko bu ñu koy jàngat am na benn borom xam bu ñuy wax Ibnul Xayyim dafa wax ne itte dañ daan wax ni mooy njëlbeenu morit murit bala moo bala moo am iraada xëm xëm mu lay jëkke waaye nag ginnaaw bi altasab dañ ko jagleel ni mooy yemukaay bi mooy yemukaayu iraada kon sëriñ bi bi mu ñëwee fekk na nit ñi di jàng alxuraan di jàng xam-xam bi jaamu yàlla waaye itte jëm leen jàngal nag mooy nañ weesoo ay wax te suubu ngirum jëf kon itte bu ñu ko waxee mooy ni sëriñ bi àndewoon ak murid yu jëkk ya mooy jiitu di dox ñu topp ci ginnaaw jàpp seen loxo ñuy dox moo tax sëriñ Saliou di ko daan leeral leeral bu gàtt di daan wax ni yoonu murid du yoonu dem leen ma ñëw waaye yoonu ñëw leen ñu dem la kon itte bu ñu ko waxee ndeke mooy sóobu jàpp ci loxo yi nit ñi ngeen ànd dox dem lu ma itte mooy li nga li nga bëgg nga taxaw temm ci lu la ko may loolu lañuy tudd it boo defee ne itte di ñaar dafa am itte ju kawe ak itte ju suufe ju gàtt lan mooy itte ju kawe itte ju kawe mooy lu mën a doon nga bañ a bëgg yu ndaw yi bëggal la ca kaw bu ñëwee ci ab société bul bul bëgg a doon lenn lu dul directeur bu fekkee ne dangaa ñëw fekk ñuy xëccoo am réew bul bëgg a doon lenn lu dul président naka noonu bépp martaba bu ñuy sàkku ci yàlla bul sàkku yu ndaw ndawaan yi seetal li ci gën a kawe te jombut nga nga nga sàkku loola ci yàlla légui nak maratib yi ñi am ci yàlla liñ ci xam ak nubuwa mo ci gëna kawe muy mursalona waye waaye buñ jàllee siddiq mo ci top ta siddiq bobu góor mën ko nek jigen mën ko nek kon yàlla xañu ko kenn kon nit kuy sakku ku ne set li gëna kawe ci liñu wara sakku nga sakku loolu lañu tuddé tuddee ju kawe motax tax yonente bi nino bu ngeen dé ñaan yàlla ñaan leen ko firdaws ndax firdaws mo gëna kawe ci aljanna yi ida saaltumullaha fasaluhu l firdawsa al aala kon borom itte ju rëy dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki nga xam ni lu mu doon du bëgg yu tuut tuutaane waaye li ci gën a kawe lay seen mu mu mu mal ko bëgg ko nag lu ko ca fekk baax waaye itte ju suufe mooy itte yii nga xam ni maanaam mala yi ci lañ nekk damay wax ni nit li fekk itte mi ngi ko aj ci lekk naan ak defar kër gu rafet ak fexe ba saytu ak njabootam di leen faj ak aar na xam ne weesoogul matlaw picc yi ndax picc yi danañ fexe ba lekk danañ fexe ba naan danañ fexe ba defarum tàgg pour aar seen njaboot kon nit soxla nañ ci moom moo am itte bu gën a kawe na wees foofu loolu la Sëñ Tuubaa soxloon ci ay muritam mutanabbi benn woykat ne ne isa isa xaamarta fi sharafin marumin فلا تقنع بما دون النجوم nujumi boo demee bay rey sa bopp di wut tedd nga فكي تي bu fekkee دال بول بول تاخاو موكو تا اغو تي mukk سيتال ëggoo تي غنا seetal ya ساكو gën a واي ديغنتي بول sàkku ji loolu rek waaye diggante bul ci sol dal fa taamul mawti fi amrin xaqirin ka taamil mawti fi amrin nga don sakku kawe ba dee ci ak ngay sakku lu tuuti ba dee ci ñu am wala fi di wax ne kuy de ci àll na la gaynde rey mooy da ngay seet li gën a kawe nga bëgg ko ba loolu say fekk fekk la yonente bi di soññee jamono bu ne ci itte ju kawe di wax ne yàlla day li mu gën a bëgg mooy mbir yu rëy yi waaye yu suufe yi da koy bañ jullit bu am itte ju kawe nag ñetti mbir lay boole ci ab doxam day xër première fois ci njariñ waxuma njariñul boppam de li wolof yi wax naan njariñ loo fekkee loolu lépp ñàkk itte gab lay rek ku am itte day fas yi njariñ am même boo ko fekkee lu baax lépp luy jariñ doomu aadama ci seen adduna ak ci seen alaxira nga di ci yëngatu même boo ko fekkewul baax waaye boo ne njariñ loo fekkee boo ko ne la fekkee génn ci loolu ñàkk fas yàlla ñàkk itte lay ma ne boroom été buy dox ñetti mbir dana ko boole day xër ci njariñ dimbali ko yàlla ak ñàkk tayel ñàkk décourage ñett yooyu ngay boole la ngay sàkk doo ko ndax fi mu toll ñett ngi yoo xam ne dañoo waaye bokkuñ itte bokkut farlu bokkut ak jom xaw ma ngeen comme de ñett yi ak farlu ak jom bokkuñ itte nga seet lu kawe nga acc sa itte soxla ko farlu mooy nga jox ko la nga mën lépp ci temps ak ci coono ak ci pour jot lan mooy jom jom mooy la cay metti nga di ko muñ lu metti metti nga muñ kon bokku te loolu nag la ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal mooy ihris ala ma yanfauk wastain billahi wala taajis mooy na farlu ci lu lay amal njariñ tey dimbali ko yàlla te bañ a tàyyeel bañ a découragé kon ki am itte ju kawe ngir mu àgg ca itteem jooje fokk mu boole ñett fokk mu mu dimbali ko yàlla fokk mu farlu fokk mu muñ but loolu du àgg te itte ju kawe nag mbooleem ñi masa jàll ci àdduna mbaa ñu taxawal fi dara itte ju kawe ju la yem taxawal ko ba ci ba ci réew yi ñu nekk rek réew tubaab yi rek lépp lu ñu taxawal ci àdduna itte moo leen ko taxawal taxawal moo tax damay wax ni jullit bi ñëw fii ci réew tubaab yi dafa dund am na ñaari mbir yuñ ko sant muy na indi jikko jëm yor bañ xeemeem ko ngir mën ko jël waaye na seet lañ ko raawee mu jël ko yóbbaale moo itam ko fële muy itte ju kawe jooju dañ ko war a jàngee ci ñoom indil leen it pas-pas bu rafet te itte ju kawe moom moo borom itte ju kawe mooy fekk nit ñi di nelaw mu yee leen mu yee leen bañ xam ne fii ñu nekk baaxul dañu ko dañu ko war a weesu itte ju kawe mooy tax nit ki kenn nit képp dem ba mel ni mbooloo mel mën a wecc junni nit inna ibrahima kaana ummatan قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين إبراهيم سن borom dafa wax ne ab nation la aw xeet la te léegi kenn la waaye itam ji koy moo tax mu mel ni mbooloo wa qiila rubba rajulin ka alfi wa rubba alfin qiimatan ka uffi am na benn waay boo xam ne dana taxaw taxawaay junni nit waaye nag mën ngaa jël junni nit yoo xam ne it boo leen doon peese ñoo seroñe kon loolu mooy itte ji ñu doon wax lan mooy itte dëgg dëgg dëgg mooy itte loolu mooy itte tomb ñaareel bi mooy lan moo xaajale diggante itte ju kawe ak mébét yu bari itte ak mébét ndax gis nañu ahlu tasawuf di tagg boroom itte yu kawe gis nañu leen ñuy ŋàññi mébét yu bari gis nañu leen ñuy ŋàññi itte ju suufe gis nañu leen it ñuy tagg gàttal ay mébét kon léegi lan moo xajale diggante itte ju kawe ak mébét yu kawe lan moo xaajale diggante ñàkk itte ak gàttal ay mébét loolu daa mat jàng jamono bu ne mu mel ni itte ju kawe buñ ko waxee mooy li la tax a li nga bëgg nga nga seet li gën a kawe nga aj ko ci ba noppi nag buur jëm ci mébét nag buñ ko waxee buñ nee mébét lu ci ëpp moo ko àdduna ñooy lëkkaloo mooy nga yemale ko ci àdduna képp gàtt gàtt itte lay tekki ñaareel première fois ñaareel bi mooy mébét ki koy def lu ci ëpp du jóg dox mètre pour am am li mu bëgg day bëgg a toog di mébét rek lu nit am mu jàpp war na ko am te yëngatu yëngatu ci kon itte ak mébét bokkuñ mébét dañ koy bañ itte nag lañ soxla ci nekk moo tax yonente bi ni alkayisu man daana nafsa ke muus mooy ki not bakkana wa amila lima baada al mawti te jëf ngir ëllëg wala ahmaqu nag man atbau nafsa wa hawaha wa tamannaha lil amani ki nga xam daa dof nag mooy ki nga xam ne day tofal topp bakkanam ba noppi lépp lu ñu bëgg lu ñuy am mu jàpp ni war na ko am kon mébét mooy di bëgg rek ànd ak toog di xoole itte mooy li nga bëgg nga ni ñokket taxaw fas yéene mu taxaw moo tax mébét yu gudd ak xër ci àdduna yant bi da koy faral di boole di wax ni ñeenta ngi yoo xam ni ak texee di lay teg muy woowu bët nit ki dem ba ba bëtam wow dootul dara mën a tëggante ne ak rankoñam loolu nee na ak taxay di ci nit ki naka noonu xol bu wow naka noonu mébét yu gudd ak xër ci àdduna yépp nee na ak taxay dile lay teg ci nit ki day sonal nit ki waaye nag ñaari mbir ngi mat xam ne àdduna ak alaaxira lan mooy àdduna ak lan mooy alaaxira àdduna aw yoon la ñuy romb di jàll alaaxira mooy dëkkuwaay bi nga xamante ni mooy saxwaay ba fa la nit ñi jëm jullit dañuy bëgg rek xam-xamam bépp mu tënk ko xam ni adduna ab jaarukaay la alaxira fa la jëm mooy dëkkuwaay bu defee nag ci kaw noonu mu xamee ni fii aw yoon la fee ab dëkkuwaay la muy jëfe noonu jëf lu toll ni li ngay jëf ci aw yoon woo romb jàll lu toll ni li nga soxla ca dëkk bee nga jëm nga nga di ko liggéey pour mandat ko mu dem foofu waaye nag liggéey ngir adduna ak liggéey alaxira ngir alaxira yi daa ma tax xàmmee nag tuuti ndax liggéeyu adduna mooy buñ ne adduna mooy commerce ndax mooy bay ndax mooy sàmm ndax mooy jàng ndax mooy nangam ndax loolu mooy liggéey àdduna bu ñu ne liggéeyu àllaaxira ñu ne kon mooy dem kàbbar di julli di woor di jàng alxuraan yor doolu xasida di sikar ndax loolu mooy jëfi àllaaxira ñu ne déedéet jëfi jëf ji ngay sàkku àdduna même jëf ji ci mooy yoon wi lay yóbbu ci àllaaxira amut ñaari yoon amut yoon woo xam di naan yoon wee moo jëm ci àdduna yoon wee moo jëm ci àllaaxira wenn yoon wi moo jëm ci àdduna moo jëm ci àllaaxira kii dafa gàttal ay itteem yemale ko fii kii guddal ay itteem yemale jëmale ko fële waaye waaye du duñ ni rek àdduna nga ni kon ba ci xëy dem ca marché ba di liggéeyee sax mbirum àdduna la déedéet bul jàpp mbirum àdduna la jàppal ne yoon woowu ngay wute àdduna ci la ñuy wute yàlla demal ca marché ba commercial demal nga bay demal nga sàmmi fexeel ba am alal fexeel ba am xam-xam ba noppi nag sa hëdëf na doon ngërëmul yàlla mooy loolu boo ko fabee na ko wut pour wutee ko ngërëmul yàlla te loolu it lañ gis magi murid yi ak doomi Sëriñ Tuubaa yëpp soobu ko ndax ku ne xam na ni gor suuf su yaatu jënd jënd matériel ci lu jege milliard jël alal ju bari investi ko ci dara loolu doomi Sëriñ Tuubaa loolu la gisuñu ko def Sëriñ Saliou bu bëgg demu ñaay dafa jóge jënd ñaar téeméeri tracteur ak nangam te wutu ci lu dul ngërëmul yàlla te kii wut àddina noonu la ko wuti mooy kon yoonu àddina yi ak yoonu àlaxira yoon la ñu wuti mooy pas-pas pas-pas moo dox ci diggante bi pas waaye jullit ak yéefarit wuute ba tey nu ñuy doxee ci ginnaaw bu pas bi jàllee muy yéefar bi day dajale alal ak nu mu ko mën a dajale mel ni kuy taxan guddi jullit bi dañuy soxla ci moom buy wut alal mu sàmmoonteeg yoon wa yàlla bëgg nga wute ko alal damay wax jamono bu ne ni sénégalais dañoo am mbaax lool tabe lool am jikko ju rafet ci lañ gën a bëgg mooy am alal ba terale ko nit ñi teraanga rek lañ soxla loolu moom day jikko sénégalais bu ne ku ci wut alal ku ne la la gën a ñor mooy am ko ba terale ko nit ñi waaye nag lu lu am solo lu mat a bàyyi xel te ñu bari duñ ko bàyyi xel mooy ne yàlla la mu laa laaj ëllëg foo dugal alal da lay jëkk laaj foo ko jëlee ba noppi bu baax nag léegi différence boobu nag mooy am diggante jullit bi ak yëfal bi yonent bi dafa wax ne kenn du poussé ci kanamu yàlla te du laaj na la ñeenti mbir sa dund bii ci lan nga ko jeexal sa ndaw ci loo ko jeexal sa alal foo ko jëlee ak foo ko dugal waaw ay dama di bàyyi xel di bàyyi xel ci ne dëgg la nga jiñ bëgg ñun ba tax ñu wut alal waaye du caage ne noo ko wute baax ndax yàlla wala mën a laaj fi nga ko dugal da lay jëkk laaj foo jëlee mu mat di bàyyi xel toujours nag waaye ma ni jullit bi dajale alal sonn ci lool ay at ba dajale ay milliards te milliards yooyu mu mën ko financé ci genn ngoon kooku danañ xam ne wututoon àdduna la mu doon sonn ngir àdduna du woon pour àdduna waaye pour yàlla la da doon wut ngir lum wasiila bu mu jaar pour wut ci ngërëm yàlla mag ñi toppoon Sëñ Tuubaa dañ daan sonn dañ daan bay di commerce lu ne def nañ te jubluwuñ ci dara lu weesu saa bu sëriñ bi soxla rek ñu mën a taxaw ci itam yooyu itam yooyu kon lañ doon sonn du woon pour adduna waaye pour ngir wut ngërëmu yàlla moo tax ñuy sonn ci adduna kon adduna seen adduna jën doon wut du pour adduna waaye dañ koy wut pour ngërëmu yàlla mm-hmm. ma ne bu fekkee yoon wi ngay jaar pour am am koom yoon wi ngay jaar pour am am personnalité pour am alal am am pouvoir bu fekkee yoon woow yi dàqoonti wut ak yoon bi suñu borom rëdd jullit bi daf ko war a sóob na wut alal na wut pouvoir ndax waaye saa boo demee nag ba yoon bi ngay jaar wuute ak yoon wi yàlla rëdd bu boobaa nga des doon ak faqiir ñàkk yoroo dara di yalwaan sax moo gën bu boobaa nga des néew doole lool ñu di la dimbale moo gën moo gën ngay jaar ci yoon woo xamante ne boo dajalee da ngay dajale ba noppi it daane yàlla dala cay fekk ëllëg kon doole ji wut ko farata la ndax yonente bi nee na jullit bi am kàttan moo gën te moo gënal yàlla jullit bu néew doole daal ne ñoom ñëpp nag baax nañ waaye nag kee moo gën te nag suñu borom dellu wax ne wa aiddu lahum mastata'tum min quwwa lu ngeen mën ci kàttan rek na ngeen ko préparé pour seen diggante ak yéefari te ku ne xam na ni alal doole la pouvoir doole la xam-xam doole la kon jullit war naa wut alal ngir am doole war naa wut pouvoir pour am doole war naa wut xam-xam pour am doole xam-xam bi bul ko yamal rek ci xam-xamu diine xam-xam yépp dañ ko soxla ngir ngir ngir jàllale diine am na ku ñu wax Fathallah Golal ci Turki gi la nekk xidma bii la jël di ci dox am benn talibe mu tabax immeuble bu mag mu seet si ko ni ko immeuble bi baax waaye nag boo ko defoon mu jiitu ji la ëllëg dina baax yabal ko mu mu ne ko nu ma koy jiitu ji ma ëllëg mu ne ko danga koy def ab jàngukaay doomi jullit di ci jàng pourtant imam boobu jànguñu fa alxuraan jànguñu fa addis xam-xamu technologie bii dañu fay jàng waaye doomi jullit yi lañ soxla mënuñu ko ñàkk la leen di jàngale foofu loolu lépp nag di ko xam ci liggéey yàlla di ci baax xam ne liggéey yàlla jërul nga doon ab médecin bu mu jàng toxoo ci ni kon naa dem jàngi alxuraan jërul nga doon ab baykat bu mu jàng toxoo ci naa dem ci càmm loo nekk rek foofa sox yàlla soxla ko mën nga ko caa liggéey moo tax sëñ Mourou Moussa sëñ Mourou saa daan wax ni daan wax ni yoonu sëñ Touba sëñ Touba ci ñeenti mbir lañ koy liggéeyal ba ci jëkk mooy borom alal ju liggéey alalam ju lew te bëgg koo def ci yoonu alal jooje sëriñ Touba soxla na ko ci biirub liggéeyam ñaareel ba mooy ndaw lu am kàttan te dooleem jooji mu bëgg koo jeexal ci yoonu yàlla doole jooju sëriñ Touba soxla na ko ci biirub liggéeyam ñetteel bi mooy ku am xam-xam bu sell bu rafet te xam-xam boobee mu bëgg koo jeexal ci yoon yàlla kookee Sëriñ Tuubaa soxla ci biir liggéeyam kon soxla nañ ci xam-xam soxla nañ ci alal soxla nañ ci xel mu rafet mooy ñett am ku am xel mu rafet te bëgg koo liggéeyee la yàlla xel moom yee Sëriñ Tuubaa soxla na ko ci biir liggéeyam kon yii lu ci nit am rek mën naa toog fa mu liggéeyal ci yàlla ba am ngërëmu yàlla moo jërul sax déplacé jërul tuxoo fenn dem ci leen waaye nag itte ju kawe dëgg dëgg dëgg dëgg mooy bul aj fenn sa itte fudul ci yàlla sab dox bul taxaw mukk te agoo ci yàlla ibnu xayyam day wax ni itte ju kawe dëgg mooy nit ki aj itteem ci yàlla di ko sàkku sàkku bu dëggu te sellal borom itte jooju nag du mën a tee def ndànk du mën a tee muñ te amul li bëgg waaye nag danaa am li bëgg am gu gaaw ngir كنا بلول بديك بتشك سبعة غن دي ود لينج فوكس سنبرا مالي كاتن تي يلا كنا خود لا مو مو مو غن يوم بود أدنى فين تولني نخ سنجوا على فهني الدنيا مدبرة لا يدركها طالب والآخرة مقبلة لا يفوتها هارب من الآخرة دفع وأدنى دفع وانا جناو دي داو كان من كنا بدأ الآخرة دفع دقم الدنيا وتكن من كنا براو داني ولكن أكسر ناس لا يعلمون يالله نقول كم وكان يوم أتنا عند فهني من أتانا يمشي أتايته هر ولا تن كيف كده حجم سيجما منيك فر قتن دولا قتن دولا يالله كونه شنو بوك سالو نقول يس نير كونه دعنا خمني لينك دفسي دعنا تسبرم جمولي نلا تخوه نلا آري نلا نوا خمني دعنا خمني لي جفوك نبلم لا ما يقتن دولا يالله تمسك سنوا كون كي جنا كاوي تشيني نيته ëpp ci daraja mooy ñi nga xam ne seen bànneex dafa nekk ci xam xam yàlla ak sopp yàlla loolu nag danañ ci xam ne ittey Sëriñ Tuubaa ju kawe ndax dafa wax ne depuis ma doon gone ne azal munsu xaqaltu taaliba maarifatan billahi jalla xaaiba musuma dañ bu ma xelloog léegi di sàkku ak xam yàlla fa jultu bayna al ulama wal awliya may wëreelu ci diggante borom xam-xam yi ak nit yàlla yi yépp rek ànd ak sama yéene ak sama jëf ak sama wax lépp ngërëmu yàlla loolu rek laa soxloon ak xam ko ci loolu yi la yar ay doomam yar ci magi murid yi murid bu ne it mu digal la itte ju kawe jooju ndax dafa wax ni ab murid wërta bëgg lu dul ngërëmu yàlla isil murabbi laa yuridu abada xayra rida rahmani xaysu xasada suñ bay jaxat di wax ne xarit yàlla yombul te moo am njariñ wutal yàlla yow mii ba dee mbaa nga am li tax yàlla yombul ku koy wut te am ci lëf soxla doo am ci moomus ngërëm dalay won mayam yépp te yër sa xol moyul dëgg muy gis ci sa xol mañ mbañam te foo gis ku saytu yëfam kat na lay gënal ay yëfam ngir ku ne gën yëfam te ak may lu rëy rëy ci xol ak ci bët jarul dëpp kuy dëpp dëppoo ndabam amul fenn foo xam ne fa yam amul fay mayam yam yëraleew tigam muy jàngale ñàkk ittee ni xarit dëgg yow bul defuk kat ndegam bëgg ngaa def nitu tedd nga ndegam bëgg ngaa tedd bul tedd yow te woppoo bu wér ndaxte kuy faaxu nga bàyyil faw biddanti te yeewu njël ku yeewu njël kat du jot cant ga na nga yeewu yow jëkk waxtu fajar di fàggu yi ngërëm nag ba jot noddu ga te boo dee nelaw nag ba waxtu fajar nga jóg yeewu dem julli biddanti nga mhm. nelaw lekk wax néewalal yett yii te boo néewalee yett yii kat nga nelaw tuuti wax tuuti mos tuuti nii la dag yépp daa def ba far ndomb ga defal nii ma wax mbaa nga jëbbal sa mbir ka def nii ma wax kon ba tey wàcc nga ku dul gis te jox ab tumam kay gisit duwoo loolu neefaaku yow yegg nga mhm. kon ñoom dégg nañ njàngaleem Sëriñ Tuubaa ba di ko jàng